léegi nag ay député yu euh, peuple bi la ñu soxla ñu bëri di ne euh, député yi ñu gis euh, tey remplir ñu li nga xam ne ni moo di critères yi sénégalais yi soxla euh, ci assemblée bees bi nga xam ne fa lañ nar a jëm. yan mooy critères yooyu yan critères la euh, sénégalais yi soxla non. Euh, non il faut pas avoir. non en fait tey nañu ah, bëgguñu am ay député yoo xam ne comme yi nekkoon ci quatorzième bi la ñuy nekk bu ñu waree signé il suffit que yéen ngeen ànd ci ngeen signé il suffit que ngeen bañ ci ànd ngeen bañ a signé di def yoo xam ne ni jël hémicycle ba transformé ko en marché xuloo fii xeex fee parce que vous êtes majorité.

un paysan war nek député. Mhm. un médecin war nek député un infirmier war ma nek ku nek par rapport ak fi nga dëkk. ku nek par rapport ak ce corps de métier ku nek ak par rapport ngay comprendre aduna, mën nga apporter une contribution. Mhm. mais l'essentiel, on va aller vers une assemblée. de mhm. rupture où tout le monde aura son rôle à jouer et va jouer pleinement son rôle. je pense que le député nous ñoo la gëna conscient que bës buñu leen parti la ñu bokk ci groupe la ñu bokk mais taxawaayu Sénégal la war a taxaw intérêt Sénégal la ñu war a défendre bu vote jotee ñu xool lu ciy njëriñu Sénégal lu ci intérêt Sénégal. Mm-hmm. ñoom ñu ngi représenté le peuple du Sénégal. Mm-hmm. ou bien seen ay département ci décision législative yëpp war nañ mën a xool lan moo ci njëriñu loolu ba ñu jëm leen ci dugal. Mm-hmm. war nañ tamit bàyyi gouvernement bi mu liggéey. bu ñu tegee gouvernement ñu bàyyi leen mm-hmm. liggéey parce que gouvernement bi moo ñëw wax ne nattal leen ma damaa bëgg liggéey li ma mm-hmm. nattal mooy tax ma indi koom-koom ci biir réew mi mm-hmm. mais gouvernement boobu temps en temps aussi war nañ koy mën a convoquer à travers des ministres mu ñëw di expliquer fan la toll. Mhm. mu ñëw di expliquer lan la liggéeyagum mu ñëw di expliquer lan moo des mu ñëw di expliquer lan mooy ay jafe-jafeem ak naka lay def ba léegi jafe-jafe yooyu. Mhm. pour mën a egsi ci li ñu soxla. Mhm. donc seen rôle aussi rôle euh, contrôler l' activité. du gouvernement la. et je pense qu'ils sont pleinement conscients ils disent que ce sont des rôles secondaires à sa fois ce sont des rôles complémentaires. parce que bu amee ay accord international tamit il faut que ñu xool ko. wala ñu bolé léeg ñoo ñoo xam ne sen seen euh, seen xam-xam ci loolu la match mhm. ñu jappalé leen. ñu gën ko mhm. mëna comprendre parce que suñ koy voter war nañ ko voter dans le cadre de l'intérêt du Sénégal. Mhm. et je suis sûr que fuñ jëm ni on aura besoin d'avoir avoir quelques lois constitutionnelles. donc ay loi yu bees lay nekk. constitution mëno mënoo jógee élection daal di voter wat ay référendum pour changer constitution. ouais surtout am ay loi yu bees yu bari bari yoo xamné war nañ ko mëna expliquer war nañ ko mëna comprendre war nañ mëna jappalé ñi ko bëgg mhm. parce que les ci doxalin doxalin bu baax doxalin bu rafet quoi donc c'est important ces députés là qu'ils mhm. soient conscients et je pense qu'ils ont été conscientisés mhm. déglu nañu ñu leen tabb campagne nañu pour am li ñu bëgg mais fépp fu ñu romb déglu nañ nit ñi te bañ leen falee ba léegi tamit nit ñaa ngi wax et je pense que ils seront véritablement à la hauteur parce qu'ils seront là pour le Sénégal. exactement euh, loolee la nit ñi d' ailleurs daal di soxla sax ñu taxaw taxawaayu député yoo xam ne ni